xasida yi ci ci ci yi rek ci xasida yi rek nan mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek kenn ku mën a bégale ci xasida yi rek baax. di gën a sell di gën a bàjj na rek nag. bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn. lu lu lu lu leen di jëme ci lii. fa tabaarakallaahu. Moussa njuumte gi daa rëy lool tayit bu fekkoon ni boroom xam-xam nga bu ragal yàlla wala boroom xam-xam nga boo xam ni ak rëy niwul ci yow. génn te Tuubaa ko day jot ci yow sëkk li ma la ci nga xam ne firnde la ci te xasida gi yomb na lool ba foo nekk rek boo ko abbee ñëwal la ko muy mooy bu la sëñ bi diggee ci tërjumaan ji day sax jàng àgg na sax ba ci xool weesu na waaye xool sax digg ko ci xool waaw ah, kon xasida moom ba sëñ bee ko digle digloo ko loolu ngay xool yéen murid yi tontu Moussa nag maa leen di yedd ndax Moussa moom lenn ma jaaxal ci moom mooy yéen ñi ku ñu nekk mën maa wax kër sëriñam te koo jëlaat sëriñam wax la ko waaye Moussa daal ab sëriñam laa koy laaj moom maanaam fan la jébbalu ba tax mu sañ di wax ak di ko ne ma xas ko rek teg waaw kenn baaxut ci moom daal loolu jaaxal na kenn baaxut ci moom te moom nag boo ko déggee wax dëgg yàlla de nit koo xam daanaka moom jëmmam ma ko ñor daal maanaam ay waxtaanam ma ko ñor ay ay daal jëmmam ma ko ñor reesu nam waaw moom daal sëriñam laa koy laaj ba xam fan la bokk ba tax moom sëñ bi mu sañ a yedd boo koo xam ni moom boo nekkoon fan nga bokk mu la